anniversaire bi di anniversaire tey am nañ ko fi ay employé surprise bi nag mi ngi waaj a ñëw ndax mi ngi ci bunt bi di ñëw gis ngeen yaayam moo yor bi noonu di ko euh, taal dafa surprise nga xam ne moom moo di doomu jigéen di di borom euh, dibiteri bi nga xam ne tey employé ñoom ñoo koy euh, defal li nga xam ne moom di anniversaire am tey ci mars gile moom bu baax di ko souhaité encore une fois joyeux anniversaire gis yaay booy mi ngi noonu téye gâteau bi war xam ne moom moo di doomam dégg seede yi xam ne ah, daal koy wax waaye mu ànd ak ay mbokkam nag ànd xam ne ñoom ñooy ay ndijaay Uba ànd ak ñi xam ne ñoom ay tante Uba moom ah, yaayu Uba ko donc mi ngi wax léegi doomam ah, baax ki nga xam ne baax na ko waaye itam doomam jàppale gi nga xam ne jàppale na ko ba waral tey mu yàq ay nelawam ñëw fii ci anniversaire bu baax bi ne waaw nii ñu ngi si gis ngeen ko daa tiit ndax surprise bi foogee wu ko woon moom bu baax tey mu baax tey mu baax nekk sax ngeen moom bu baax di leen sur le choc ndax surprise bi nga xam ni tey amalal nañ ko ko yaayam daal ko koy defal loolu la. sallallahu alayhi wa sallam ñoo di nuyu suñuy waajur di nuyu suñuy borom doom may nuyu samay rakk di nuyu samay doom di nuyu samay sët di nuyu sama rakk yi fi toog ñëpp nag ba nga jabaate ñu ne ànd ak ñëpp samay rakk la man Fatou Sall nag duma tudd lu tax moo jël Alaaji Kamara loolu lépp la woon 39 kon nag sama mbokkam yii mu àndal bu ne ay xaritam ne ay mbokkam yii mu àndal lu mën a bokk bokk ngeen bokk kon dañuy def tàkk sama ci ma boppam lool sama mag ci loolu lañ day sedd sama xol. ma di ko ñaanal ko yal la yàlla sagal sagal nga ma xam nga ma maay kan teg ma sama place mais yàlla bu la yàlla bàyyi yàlla yàlla indi jàmm maa ngi nuyu nag mbooloo mi yëpp di nuyu sama càmmeñ yi nekk Amérique ak ñi nekk fii sama rakk yi ñi nekk fii yaay jëlaati ñu ngi topp man te rëkku ma ndax ñëpp xam ne moom xëy doon ma waaye ku la ñëw sama kanam ngay xool man loolu ngay demal bu bu ñu xëyee suba rek ma woo ma woo ma ku ma woo ma woo dinañ ma woo suba woo ma woo dañ may woo ba ma mere leen loolu lu dara lu cofeel bi ñu am ci man ma di leen ñaanal yàlla leen ko yàlla defal man li ma lay ñaanal mooy wér li may ñaanal wér balaa ngay ñaanal ñay na ko kon yal ko yàlla mooy wér mamaa jabaate yàlla ñu toog allah ji kamara bi la yóbbul si Seydina Muhammad yàlla man na ko am na ko yàlla ko yàlla suñu borom bi dafa ba loolu passé maa ngi gërëm caat muy nuyu ay magam d'abord muy Adama Kanté kooku di sama doom bëggal ma boppam lool macha allah lu ma wax ma sama yaay man loolu day dama li may wax ñëpp xam nañ loolu moom ñëpp xam a ba ca Mali muy asukante allah ba loolu passé may muy Ousmane Camara ñu ni ma woowee Alaaji Camara xale jëm koo xamee ju bu baax ma di ko nuyu di ko ñaanal yàlla di nuyu xaritam yi ñuy àndal Lamine Diouf ak Bamba Alaaji Camara damay dem màkk Lamine Diouf sama boole maa ngi koy wax léegi maam sant ma ne ko Lamine Diouf amul fu mu mën a dugg ci man barke Mouhamed amul fu mu mën a dugg même su ma fekk dem ñu dem su ma ko nee Lamine Diouf xanaa sonn lu ma yéen de damaa ragal Touba nañ dem rek yóbbu ko fu nekk man ba léegi loolu nag. baax na moom seexal waaye. allah ji tamam maa ngi lay ñaanal yàlla de su la waxee maa ngi ñaan ñëpp xam na sagal na sagal na la ndax papay Alaaji waxkat la papam da daan wax papam amul jigéen koo xamante ne moom papam président yi rek la daan àndal ñooñu la daan wayaan papam tudd Mali soo ne El Hadji Badji di Camara lu la la tëral papam wax rek moo doon liggéey waaye macha allah yar na fi njabootam yar ci ay doomam yar ci ay sëtam papaam këram moomam bu dugg école ñoom ñëpp alxuraan la ñuy kon nag Alaaji su ñu lee lii dina jaaxal dinaa xam ne da koo doon ci ay waajuram ndax papaam moom macha allah dóoru ma saabu ma man maa doon ñeenteeli jabar papa man maa doon ñeenteeli loolu ñun ñu ma woowee caat te sër ga caat lañ ma a wóolu ndax jabaram ya fa nekkoon ñëpp man tànt laa lañ woon waaye nag ñii ñoom ñëpp caat lañ ma naan wóolu lan moo ko indi di dul jigéen kon ma sagale mu jógee Mali ñëw Dakar di ma takk si àddina yëpp gis nañu keroog ba mu jëkkee ñëw ma nuyu si fukki at ak ñaar ko gunge ne loolu yàlla moo ko dogal kon alaaji Camara góorgóorlu gis nga bu ngeen góorgóorloo rek da ngeen di def góorgóorlu rek mooy tax a góorgóorlu waaye boo nee dama sonn ci yaafus la bokk góor du sonn góor day dem rek kon yàlla na leen yàlla jàppale yàlla leen yàlla suturaal yàlla leen yàlla sagal bu ñëwee bu fekkee ma tëdd lan lay jëkk wax jot lan la jot lan moo la doon boo jot lan la mën na ko dara damaa sonn alaaji kama sama tànk bee ñetti su ma teel ñëw daal oto bi nañ jëm hôpital mën na ko du dem kon maa ngi doon wax ko yaayee de mën na ko du dem hôpital waaye dina fexe ndax dama yóbbu ne ko laaj dama laa yërëm ci xaalis bi mu ne ma nga yërëm ma ci xaalis bi man ma yërëm la ci nit yi kon nañu dem kon yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla suturaat yal na leen yàlla sagal ragal yëpp yàlla la ragal yëpp yàlla dem leen ci kaw ca kanam rek tant que yéen a ngi fonk seeni waajur am seen yërmaande waajur am seen cofeelu waajur di déggal seen i waajur ca kanam rek kanam rek donc bu mu am rek dafa déggal ay waajur ku déggal say waajur rek yàlla dégg kanam rek kon nag jërëjëf wa salaam ñu nuyu liggéey moom ñëpp maa ngi leen di nuyu ndax xale ay jàmbaar la benn loxo mënul def bu fekkoon te ne employé bi dañ ko booleeg ba bàyyeeg moom rek walaay kon du dem jigéen ñaa ngi ci góor ñaa ngi ci ndaw ñaa ngi ci mag ñaa ngi ci alaaji sa employé sagal nañ la sagal la sa nawle bu la sagale nañ mooy sagal xale yi sagal nañ leen kon yàlla na yàlla may xol boo leen muñale ndax dajale ay nit dafa nekk dajale sa papa noonu la mel yaay actuellement parce que toll nañ juróomi at yoo xam ni place maam la féete kii moo ñu féete place yaay mooy jug di barki Seydina dafa feebar sama yaay man dafa liggéey ndax sa yaay génn àdduna ba léegi nga gis sa yaay loolu lu rëy rëy la c'est pas appelé a n'importe kii kon bu am lii firnde la tey sama jarbaat bi nga xam ni que moom moo gën a tuuti ci samay jarbaat barke Seexul Xadim su ma nee ko mu daw ñëw billaay wallaay tallaay li naa rakk xool ma du siggi xool ma ba léegi wallahi la fii kii dama koy forcer billaay wallaay tallaay ba complicité bi ñëw ak man donc dafa nekk loo xam ne que exemple la exemple boobu man jeunes yi laa koy lancé nañu jóg ñoom ñëpp li ubaa di réalisé ñoom ñëpp mën nañ ko surtout ñi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw ubaa di liggéeyal ubaa kenn boo la war a jaar yoon bi leer na yàlla na leen yàlla defal jàmm xale yi awa mention spéciale Touba mention spéciale kontaan naa ci yëpp jërë ngeen jëf. ma employé ngi nii mënu ma wax si ñoom liñ ma defal nii ku mu doyul leneen dootu ma defal nii yëpp sama juróom demu defar yëpp sama dërëm demu si ndax bañ koy defar laajuñu ma yëguñu ma fekkeew ma. dañ ma complot def lii yëpp ñoom même bu ma leen tuddul sax xam nañ fu ñu toll si man ndax man si sama biir emploi weer bi dee ma war a fay nit li ma yor sax di mat bu ma joxal diw joxal diw joxal diw loolu teraanga la donc man complicité bu ma am ñoom dañoo mel ni ku bokk ay ndey bàyyi donc may gërëm sama kóllëre ñoom yaay ñoom Roqee Jaabi ñoom Tànday Caam di gërëm ñu fi toog ñëpp ku mel ni maître Jongo aw ma fayam parce que lii. ba ma koy sos man ak moom ñoo doon ànd di ko doxandoo. mag ju baax la na koy bàyyiloo liggéeyam. di dugg moom fu ne. mu ma. Touba ñi si participé Diouf mënu ma taxaw fii di leen amul ku si dugalul loxoom man boo gisee tey jii ma gën a am fit gën a nangoo avancé si lii samay mbokk ñoo tax samay waa samay nijaay amul benn ni ñu ni sama rakku yaay la dañoo mel ni comme ay morom te pourtant lim ma magee fas mënu ko daw bu la woo ko ne ko Cheikhou lii ak lii mu ne def leen nii ak nii boo gisee moom dama xam ne am naa ginnaaw man samay bañ ko waxee Cheikhu dafa bàyyi ak suma bakk nu njaboot wallaahi wala zim ba léegi xooluma nu mu mel xool nu mu mel xam ne samay mbokk ñu ngi sama Ndeye Ndiaye sànq moo ko jël moo ko yóbbu moo dem moo ñëw ba mu ñëwee ni ma man lan laay tiit dara sama yaay nee na ma bul tiit sama rakku yaay nee na ma bul tiit sama nijaay nee na ma bul tiit sama man lan laay tiit man damay sant yàlla gis nga du xaar mais ay nit yu la tiim yu lay jàppale loolu la doomu aadama war a sante yàlla te man nit ñee ngi sama wet ñii ñëpp xoola ñoom maître ñoom maître jong ñoom andi ku su ne problème man lan daa ëpp solo xaalis xaalis amul solo parce que ku si nekk am nga loo xamante ni mënuma wax nañ bàyyi noonu yàlla yàlla baax na